lii danañ leen jàppale xam nga nag ma woo ne ma Médina rek man leen ñëw leen d'accord Médina rek man leen ñëw leen parce que ci la bokk te lii ku nekk def si war a dugal loxoom d'accord muy relayer l'actualité de la Médina muy relayer tout ce qui se passe à la Médina tout ce qui se fait fait à la Médina et tout ce qui se à la Médina mu nekk un rendez-vous pour képp ku koo xam ne soxal nga Médina ngay ñëw di xool fii affaire yi ñëpp ci lañ bokk na ci ñëpp def seen loxo. incha allah. Yo, yo, yo, yo, yo,